Oh, Suleman, Souleymane yan, yan yan moment ñoo la gën a marqué ñoo la gën a marqué durant li nga nekk si tanière bi yëpp yu iya, ma gën a marqué ci ci ci ci ci lan c'est eh, à dire ba ngay nekk équipe nationale yan moment ñoo la gën a marqué ci ba nga seen groupe boobu bon yu iya, ma moment yu ma moment yu ma iya, marqué eh, <laughs> bon bari na eh, mais mën naa la si sitel ñaar rek mhm. bon benn bi bu njëkk bi. Hmm. Euh, Coupe d'Afrique la woon. Hmm. dañ nekkoon entraînement ni pour te dire solidarité bi nga xamante ne moom moo nekkoon suñu diggante. Hmm. benn euh, kii la woon boo xamante ne dañ doon entraîné nii. Ferdinand Coly ak euh, Pape Sarr ñu ñu xaw ma Ferdinand Coly xaw ma dafa laal dafa xaw a gaañ Pape Sarr. ñu jàppante noonu. yaa ngi dégg. ñu jàppante noonu ñu naroon dóorante foofu après passer Sarr génn terrain bi. Mhm. Pape Sarr génn terrain bi dem jëli mool. mool. <laughs> lu leer laa la wax pour te dire. Mhm. Euh, équipe bo équipe boobu. Mhm. franchement ku nekk parce que ku nekk lu mu xalaat da ko koy da koy wax moromam. parce que dafa amoon benn ñun ñëpp benn objectif la ñu amoon. moom mooy indil Sénégal ndam. yaa ngi dégg euh, donc. Euh, Pape Sarr dem jëlee xeer ñun xamuñoon lu muy def yi en dafa hmm. jékki-jékki génn pour ñun dafa gedd. Hmm. ndekete mool la dem jëli <laughs> nëbb ko ci ci ci ci ci ginnaawam nii di ñëw pour song euh, fer bi xam nga après ñu téye leen kii ak yooy loolu bokk na ci lu ma marqué beneen bi. Hmm. dañ doon ba ñuy dem Japon. ci train bi.

xam nga moment la yoo xamante ne vraiment ba dóorante am fa kii ak yooyu mais loolu yëpp malheureusement euh, kii euh, heureusement. Hmm. loolu yëpp amoon nañ benn solidarité bi nga xamante ne loolu yëpp mosul génn. te daawul senn. Hmm. waaw daawul senn loolu la dañ ko doon kii interne. Hmm. bokk na ci vraiment li nga xamante ne wax dëgg yàlla marqué na ma ci tanière bi mais am na comme ni ma ko waxee am na damay ña damay yem ci ñaar yooyu rek. mais am na yu bari yoo xamante wax dëgg yàlla. yu ma yu ma marqué ci ci ci ci tanière boobu. Mm. xam nga bokk na ci aussi solidarité boo xamante ne boo laalee benn jour rek je me rappelle laal nga jour yëpp. Mm. laal nga jour yëpp te vraiment moment yu moment yu fort la woon quoi. Mm.